je j'ai donné mon opinion sur la base de question bi ma wax perception bi mën nañ xalaat ne le cas de Sweet Beauty ça a impacté sur l'image Ousmane Sonko. loolu la ñëpp xam. Barth loolu ñëpp xam nañ ko. mais dama ne jusqu'à quel point loolu laa loolu laa la wax loolu laa nekk mhm. boobu que impacté na sur image am def nañ ay réglages internes affaire est-ce que cela se traduira par une baisse de son score sur les locales loolu pap excuse-moi je peux pas m'avancer là-dessus. Mhm. aw ma aw ma instrument bi. Mhm. où est manque de courage dans ça. d'accord alors oh. naka nga gisee son discours par exemple d'antisystème ak tey. tu sais moi. ak li nga gis ci fay yi li nga gis. tu sais moi euh, les, les affaires de d'anti d'antisystème d'abord pour nga mën wax ay discours antisystème il faut il faut définir ce que c'est un système. un mhm. système c'est un c'est un fourre-tout dire le le phénomène Ousmane Sonko il est intéressant sur sur euh, sur, sur plusieurs aspects mhm. en réalité ce qui est en de se passer mhm. peut-être dañu amul recul mais lu fi amoon la ba pare une bonne partie de du discours de Ousmane Sonko sur le rejet euh, du franc CFA sur le fait que dañu war a nekk un peu nationaliste yooyu yëpp amoon na déjà dans les années soixante sur plusieurs aspects son discours essai essai là je dis bien essai dans les années 60 kan moo ko porté woon. quelqu'un comme Mamadou Dia. Mhm. a essayé de porter ce discours de manière plus structurée beaucoup plus élaborée que ce que Ousmane Sonko euh, di wax. Mhm. et bokk na ci lu tax en 62 on l'a on l'a on l'a mhm. donc il y rien en fait de de vraiment nouveau sous le soleil peut-être ñi dañu fàtte woon dans les années 60 tout ce qui se passe là euh, France dégage et cetera. mais amoon na ba pare peut-être boobu c'est la terminologie qui euh, qui changeait les gens parlaient de de d'anti-impérialisme de bourgeoisie euh, comprador et cetera loolu pour ñu xam euh, un peu ce qui était gauchiste et cetera quelle était leur terminologie de l'époque on assiste à un retour un peu de de l'histoire sous d'autres formes donc sous ce sous ce rapport la peut-être qu'il incarne une nouvelle nouveauté avec son discours tranchant il a profité d'un vide mou daal di ñëw di ko def mais man ma conviction profonde mooy que quelqu'un qui a été au cœur d'un système comme euh, impôt et domaine nga bëgg réformer le Sénégal avec euh, des inspecteurs des impôts et domaines j'ai rien contre eux je, je c'est des gens pour qui j'ai le plus grand respect et il y a de très très grands messieurs là-bas euh, sont très bien formés c'est la crème de notre administration waaw ma ne ma ne ñooñu see mhm. ci ñu gën a xarañ ci réew mi lañ bokk mhm. mais comme c'est des hauts fonctionnaires nekk au cœur d'un système pour réformer ko dina dina jafe pour man mhm. waaw pour dire le moins soo xoolee seen extraction ñoom fi ñu jógee ñu bëgg porter un discours de rupture new ma mënuñu ko def Mhm. mais il faudra qu'il fasse violence à eux-mêmes lan la Ousmane Sonko mën a gagné lan la a perte hmm? ci àndam ak Khalifa Sall euh, lan la ci mën a gagné lan la ci mën a perte par exemple bu fekkonte ni li ñu bëggoon am na kon tey seen coalition parti démocratique Sénégal lañ ciy bokk hmm. notamment parce que loolu lañ njëkkoon annoncé hmm. lan la mënoon gagné ci loolu pour yow le fait que mu mu ànd ak ñoom lan la ci mën a gagné lan la ci mën a perte mais d'abord Ousmane Sonko il gagne beaucoup parce que il est moins isolé le fait que par rapport ak épreuve yu mu yu mu dund mu daal di am euh, ay kàngam yu mel ni xalifa Sall daal di ñëw rejoindre ko wala bokk ak moom coalition ça l'isole un peu moins sur la scène politique. tout à loolu déjà c'est un premier gain. Mm-hmm. pour son moral. Mm-hmm. pour pour wane ne du moom rek euh, moo ne cundum nekk cible pouvoir mm-hmm. bi. loolu loolu c'est un gain politique. maintenant s'il le transforme en dans les urnes ci ci coalition boobu ils arrivent à rafler euh, des mairies importantes mais c'est une très très bonne option pour euh, les législatives ak pour euh, élection 2024 mhm. il a plus à gagner ci ànd ak ci coalition bi que plutôt d'y aller d'y aller tout seul maintenant peut-être pour son ego Euh, bu muy nekk chef de l'opposition on ne que de lu ak ay euh, mu mu nekk au centre du jeu en trois ans quatre ans mu réussir euh, prouesse boobu am na peut-être lu koy ramener sur sur terre. mais politiquement et mu mu bootu ci coalition bi. je pense mais est-ce que est-ce que gisuloo ci wax waxeet quand même ci koo xam ni dafa jàppoon ni ñii ñoom ñooy politique yi ñoo baaxul parce que loolu moo nekkoon discours bi. mais totalement. wax waxeet dans le dans le dans le Pastef y en a a eu beaucoup ils se sont. arrangé wu nañ ba xam ne yàlla a le discours <laughs> et il y a la réelle politique euh, ñu bëri ñu ñu ñu ñu doon ŋaññ wala moom Ousmane Sonko bi muy ñëw au début dans dans son discours tranchant et cetera tey soo ci seppee lu bëri ce qui reste euh, ci discours antisystème bi euh, ba bëreetul mm-hmm. il est confronté à un choix cornélien soit topp idéologie boobu mu mu gëmoon moom kese mu ci mu ciy dem so so moytul mu wéet ci lool dans les urnes dans dans l'opinion publique wala mu daal def réalisme politique quitte à euh, manger son chapeau euh, am yenn compromission sax waxuma sax compromis yenn compromission yoo xam ne da koy def pour mu pour mu mun survivre c'est pas c'est c'est pas facile pour lui c'est pas facile lan nga bëgg wax ci compromission lan par exemple mooy ravaler ay bien sûr maanaam compromission yi mooy nga dem nga ànd ak ay nit ñoo xam ne di nga da nga doon wax ne c'est l'incarnation du système comme le gens du du du PDS euh, qu'il ne qu'il n'avait pas raté mu dem ba xam ne soxna la leen jéem waxtaan ak ñoom et cetera euh, dans dans la définition ou bien tentative de définition système bu ñuy wax xalifa Khalifa Sall apparatchik bu nekkoon PS et cetera sooy si tu cherches quelqu'un boo xam ne peut-être euh, mun nañu wax ci système la bokkoon encore que c'est un grand monsieur et cetera. mais kon Barka da nga jàpp ni bu gëmoon par exemple boppam gëm discours am. Mhm. continuer waaw du am dara quand même. non ça dépend dina am peut-être ñu ko ci fekk si xam nga le problème avec toi c'est que da ngay yaakaar ne affaire yi c'est soit noir ou blanc ça peut être du daw wax ji c'est par par par prudence. am na ñoo xam ne Ousmane Sonko les séduisait parce que discours am bokkul ak woon benn discours ñu bëree bëri ci loolu lañu adhéré à cause de sa jeunesse. et de ce qu'il pense être la nouveauté de ses idées mu charmer leen ñu ñu topp ko ci loolu mais am na ñoo xam ne tey ils sont perplexes parce que même pour pour le PASTEF est même souvent maintenant dans une posture défensive parce que ils sont obligés de s'expliquer nit nag soo demee ba nga xam ne au lieu nga dérouler sa programme da ngay obligé di expliquer wu ça veut dire que déjà le le que tu es appelé par par la par réel politique boobu may wax ils se sont ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas redéfinir la politique. Mhm. malgré discours tranchant bu ñu amoon ak jeunesse bi Sénégal dafa am ay réalités yoo xam ne mu mënuñu alors est-ce que dañuy rester dans leur pureté là euh, au risque de faire un fiasco électoral de disparaître. wala ñu daal di ravaler yenn ci seen prétention yi. ànd ak politiciens yi pour ñu am yenn mairie yi après ñu jéem a loolu c'est le dilemme auquel ils sont confrontés. d'accord mm. c'est vrai que mënoon nañ ci continuer mais dafa am point yu bëri yoo xam ne bëgg naa ñu ñëw si euh, mu aju aussi ci Khalifa Sall nag ak son avenir politique ni ñu ko gisee par exemple. Mm. tey coalition bi munoo jàpp ne Khalifa mooy leader bi. Mm. malgré aussi. Euh, presque euh, taxawaayam ci politique ak ba muy politique nga xam ni boobu mën nañu wax ni Ousmane Sonko euh, daanaka ganeegul àddina mm. euh, mais tey bu coalition bi Yewwi Askan Wi mën nañ jàpp ni ay la yéwén mm. leader bi Ousmane Sonko la naturellement mën nañ ko jàpp bu fekkee leader mën na am ci coalition mën nañ ko jàppee noonu mais nan nga gisee par exemple la position de Khalifa mm. ci ci coalition boobu taxawaayam déjà Khalifa il revient de loin Khalifa Sall a subi quand même une fi mu jaar-jaaram dafa metti trop il était en pleine ascension ñu jël ko tëj ko ne ràpp ci kaso bi mobilisation yu mu xalaatoon walla bi mu yaakaaroon moom ak ses partisans que sénégalais dinañ ko def ne du fi amee mobilisation boobu def def nañ li ñu mën a wax dëgg waaw non def nañ li mën mais je veux dire comme nu peut-être euh, ci njortam ni mu ko yaakaaree woon il est sorti quand même un peu affaibli de